asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 dalee nag jàmm ci seen émission SOS santé bi waxtaan ak yéen àjjuma ju jot lu ko dalee 18h jàpp 19h ci lépp lu ñeel wàllu wérgu yaram te ñu am mbégte di ci dalal ki nga xam ne moom mooy Awa Kébé madame saar moom nag euh, comme ni ngeen ko déggee ci annonce bi mu ngi euh, nekk koo xamante ni daal dina subir li nga xam ne moom mooy transplantation rénale loolu nag bu ñu ko déggee mën na bañ a doon loo xam ne nit ñi xam nañ ko bu baax ndax. Euh, commencé guñu ko def fii ci réew mi mais ci biir émission bi di ngeen gën a comprendre waaye naka noone bokk na itamit ci ab kuréel euh, boo xamante ne mu ngi tudd Achir di yëngu ci lépp loo xam ne jëm na ci jàppale ñiy dund ak euh, jàngoro boobu nga xam ne moom mooy insuffisance rénale ak lépp loo xam ne ëmb na ko dañuy may rek suñu euh, gan tey di Awa Sarr madame Awa Kébé madame Sarr mu nuyoon te ak mbokki auditeurs yi. merci beaucoup Oulimata lay nuyu di yi ñuy déglu. Euh, di nuyu ñëpp. di remercier aussi sama borom kër bi ma permettre ma ñëw euh, pour ci waxtaan bi. Mhm. Euh, di leen remercier aussi bu baax. Mhm. di remercier aussi monsieur Sarr. Ahmed Sarr. Mhm. bi ma mettre en rapport ak yéen. di remercier aussi le professeur Abdou bi nga xam ni aussi. Euh, boobu ba léegi ku ñuy soutenir la. voilà ñu lay jaajëfal également ci disponibilité bi ak euh, nangu gi nga nangu ci suñu émission c'est pas évident ñu ngi ci remercier bu baax comme ni nga ko waxee ñuy remercier aussi Ahmed Sarr bu achire moom moo facilité link bi pour ñu mën a def émission moom tamit ñu koy jaajëfal ndax ku. Euh, ku dogu la ci li nga xam ne moom mooy euh, cause insuffisance rénale fii ci réew mi voilà euh, Awa euh, Kébé Sarr donc nga nekk koo xam ne subir na li nga xam ne moom mooy transplantation rénale mais balaa ñu dellusi si ci loolu dañuy ñëw déjà ci njalbeen ci début bi insuffisance rénale naka la dikkee ci yow comment ça s'est passé en fait. ah man nag insuffisance rénale yi man dafa nekk loo xam ne dama ko judduwaale woon mm-hmm. depuis toute petite. dama nekkoon euh, di suivre ay traitement léegi nag ba ma demee ba màgg affaire bi ci la ma gën a sonal. Mhm. mais loolu lu ma judduwaale la woon. Mhm. waaw lu ma judduwaale la woon. da ko judduwaale parce que euh, da nga ko doon ci say parents wala exactement. loolu nag euh, laajtewu ma ci lu sori ci samay parents mais xam naa ne doonuma ko ci samay parents. Mhm. doonuma ko ci samay parents c'est pas une maladie. héréditaire. Mhm. Euh, peut-être que je sais pas xëy na malformation la woon rek. d'accord waaw mhm. malformation la laa ko gën a yaakaar. Mhm. waaw voilà donc euh, depuis toute petite yaa ngi ciy suivre ay traitements euh, mais li nga xam ne moom mooy feebar bi en tant que tel. parce que boo nekkee xale doo xàmmee yenn yi doo xam donc say parent ñoom ñoo lay toppatoo di jóg di di jógandoo di euh, xeex li nga xam ne moom mooy feebar bi euh, naka la demee woon exactement. Euh, nu mu demee woon tout étant toute petite ou ba ma màggee ba nga xam ne maa jël petite nga nekk ak ngay jàngi école ak yooyu est-ce que amul lu mu la doon indil ay gàllankoor. ak si indil na ma gàllankoor indil na ma gàllankoor. Hmm. indil na ma gàllankoor yu bëri parce que soo seetee man sama morom yi. Mm-hmm. ak samay grande sœur ak samay petite sœur fi ñu noon demee jardin. Mm-hmm. man jaaruma jardin déjà sama yaay enseignante la dafa obligé woon école bu muy dem rek yóbbaale ma. Mm-hmm. école may dem yóbbaale ma euh, ba ma màggee aussi euh, mënuma woon suivre bu baax samay étude parce que li ma bëggoon def sax defuma ko. parce que euh, aw aw moon temps bi quoi parce que dama bëggoon def. kii juriste laa bëggoon nekk. Euh, nekk avocate. Mhm. mais formation sama maladie permettre tax na mënuma woon. Mhm. Euh, def ki étude boobu bu poussé waaw waaw mhm. moo tax gàllankoor na ma lu ci lu bëri. à de ban âge nga commencé vraiment di yëg euh, peut-être douleur yi nga xam ne am na ci feebar bi wala depuis nga nekk xale yaa ngi doon sentir yooyu douleur wala dafa intensifié wu par la suite. douleur hmm, doo yëg douleur. loo yëg douleur man daanu ma yëg douleur da ngay jékki-jékki mu am nu manifesté woo. Euh, mu xaw la sonal euh, ay fièvre. Mm-hmm. Hmm, ay euh, nga enflé sa yaram bi néew yi. Mm-hmm. ay gonflement tout ça. mais ba ma nekkee ba ma ba ma demee nag ba ab nekk stade yi parce que tout le temps dafay évoluer. Mm-hmm. dangay dem ba toolu benn stade nga xam ne da ngay mujj nekk il faut ñu dialyser la. parce que les médicaments ne vont plus suffire. il faut ngay def ay séances dialyse. mais euh, boo commencé def ay séance dialyse euh, période boobu nag ci la gën a metti mhm. période boobu si la gën a metti parce que dialyse moom lu metti la. Euh, période bi ngay def dialyse yaa ngi tolloon peut-être ci ay ñaata attaque yooyu. période bi may def dialyse maa ngi tolloon ci ay ci ay ci ay trente trente trente trente cinq ans. d'accord. 35 ans laa commencé def. donc très jeune nga commencé ko def. 35 ans oui 35 ans la commencé dialyse. 35 ans laa commencé dialyse waaw. Mm. voilà léegi bi nga xamante ne avant ngay dem ci ci dialyse bi euh, donc feebar bi mu nekk ak yow période boobu yëpp euh, soxlawoo ko woon jalis danga doon jël garab tout le temps tous les jours wala exactement nu mu doon demee. oui dama doon jël ay garab tous les jours. Mm. ak di suivre régime noonu la doon demee. Mm. waaw noonu la doon demee mais de noonu la doon demee médicaments yi ngay jël. médicaments yi ngay jël euh, nekk ay euh, calmant mais xam ne xam nañ ni professeurs yi xam nañ ni di nga yegg ci stade boobu. Mm. waaw mais médicaments yi peut-être que ça ralentissait un peu euh, le processus. Mm. moo tax mais di nga dem benn stade. ay médica médicaments yooyu doon ça ne va plus suffire. Mm-hmm. waaw nga dem nag dialyse. Mm-hmm. waaw Euh, ci côté alimentation bi euh, parce que yaa ngi koy wax sànq dem nga ba di suivre ay régime ak yooyu. donc ça veut dire que am na yooyu éviter am na yoo lekk ak yooyu. oui li ñu lay njëkk éviter loo mooy euh, xorom xorom bi moom danga koy bàyyi ak lépp lu gras. Mhm. da koy bàyyi ak lépp lu gras da nga koy bàyyi waaw lépp da nga koy bàyyi ngay lekk lu léger. moom moom loolu c'est avant. Mhm. mais nag boo xasee ak euh, ak comme lu ñuy wax euh, arôme yeeg cube yooyu moom tout ce qui est salé moom euh, tu l'évites. Mhm. léegi nag boo demee ba nekk stade dialyse boobu nag dafay metti parce que même ngay ngay dem stade dialyse da ngay commencer dama commencer di perte da ngay commencer perte poids. Mhm. perte appétit. loolu yëpp ngay def daal. Mhm. perte poids perte appétit. nga xam parce yu bëri doo ko mën a lekk ak yooyu. waaw mais affaire mooy dem ba def noonu quoi. Mhm. avant ngay dem dialyse. Mhm. waaw rein bi su dematee bu nga xam fonctionné wul moom automatiquement tu perds l' appétit tu commences à perdre du poids ay vomissement di la dal affaire demee noonu. man ba ma demee euh, ba ma xamee bañ ma ko waxee que da nga war dem def euh, dialyse euh, dama ragaloon. yi parent kenn yëgu ci dara mais dem naa ci médecin bi dem sama rendez vous. Euh, après les résultats d'analyse mu xamal ni ma que dama war a commencer def dialyse. Mm. man nag j'avais peur parce que xamoon luy dialyse. Mm. j'avais peur xamoon luy dialyse te aussi je pense que euh, yooyu soo koy wax patient dafa am technique boo koy waxee parce que ci médecin bi ma demoon yóbbul ko résultat yi ni ma ko waxee daf daf daf ma choqué. dafa brusque daal maanaam àndu ceeg euh, euh, diplomatie. loolu du ma ko fàtte moom mm-hmm. dama ñëw déjà j'étais faible xam naa ni man ça n'allait plus. Mm-hmm. mais quand même j'ai pris mon courage ma ñëw présenter samay résultat parce que man damay tàmm si ma joxee sama résultat dama koy ubbi xool. Mm-hmm. mën naa xool résultats yi tout ça. ma tëjji résultats yi xool ma xam ni samay résultats c'est pas fameux. mais ma traîner lu yàgg dewuma ndax xam naa ni c'est pas fameux. man ma toogaat mais may gën a faible. di gën a sonn. ba ma demee ba gën a sonn laa nii je prends mon courage à deux ma dem seeti médecin bi. Mm-hmm. ba ma demee seeti médecin bi présenté ko résultat yi xam nga loolu yëpp yaa ngi tiit yaa ngi xool médecin bi. Mm-hmm. mais daf ko xool rek yëngal bopp bi ne euh, yëngal bopp bi déjà rek xam nga loolu rek. déjà loolu rek dafay am lu muy def ci nit ki def ci nit ki nit ko mm-hmm. malaat nga ñëw xool résultat yi yëngal sa bopp. ñu ne maintenant si c'est fini. il faut nga dem dialyse. kooku sa la première fois nga koy gis médecin boobu. médecin boobu médecin boobu c'était pas la première fois ma koy gis parce que médecin bu ma doon daan ma sans médecin bi traitant bi. Mhm. bokkul ak professeur Niang ba léegi. Mhm. avant ma dem ci professeur Niang dinaa yegg si foofu nu ma def ba dem ci professeur Niang. Mhm. médecin bi ma doon suivre dafa absenté woon. ñu noo médecin ba li moo ko remplacé après mu ñëw kooku la nag ni ma ko waxee c'était bus xool sama résultat yi rek yëngal bopp bi. Euh, ne il faut nga c'est nga dem dialyse c'est fini il faut nga dem dialyse man ça m'a choqué ba mu waxee loolu tam ma tiitaat man yi man je pensais à la mort que que c'était fini pour moi je n'ai rien dit ma toog traîner ci yoon bi tout ça je ne voulais rien dire ma toog euh, ñëwaat kër ga après je n'ai rien dit que demoon naa ci médecin bi lii laa fa jëlee tout ça ma toogaat après ba ma toogaat yi di gën a faible. Mhm. parce que aw ma aw ma médicament yi defatuñu. Mhm. mais ni ma ko waxee ragal naa dialyse comme c' était fini ma toog quoi. Mhm. mais ma sonn di wàccu en secret. Euh, di perdre poids duma lekk mais mes parents comme kii dañ ci xam dara. may boobu yaa ngi doon vivre ak en famille. je vivais en famille. je vivais en famille mais je faisais tout le temps semblant d'aller mieux. Mm mais xam naa li ma doon kii. léegi ba ma sonnee ba sonn ba ma sonnee ba sonn. après euh, ci laa jékki-jékki ne xaaral ma dem demaat xoolaat beneen professeur ba ma demee nag taseeg le professeur Abdou <clears throat> ba mu ñëwee wax ko ko mu xool après mu explique ko ma ne ko wante man buggoo ma def dialyse dama ragal après mu rassuré ma ni ma non ce n'est affaire dama doon waxtaan ak ma non ca li foo fekk ñu bon am ñu baax. ñu ne mais ni ma jëlee. Hmm. mun ma non mais reetaan affaire demee noonu calmé ne ma non ça ce n'est tout jox ma exemple ni ma xoolal kii dafay def jalis xoolal ki nga romb fële ci ci biti mu may xaar kooku dafay jël def jalis y plus de cinq ans mi ngi def jalis hmm. ma xool ki ma romb sama xel dem ci ki ma romb ci biti elle était bien portante tout ça. Hmm. mu calme ma calme ma calme. ba mu delloo si la daal delloo si ma. Mhm. delloo si ma mun ma wax d' accord mun ma léegi comme sa cas dafa urgent léegi dangay bàyyi ma xool vite fait benn euh, clinique privée ñu jël la fa en charge. Mhm. ci saa si mu def démarche yëpp ci laa woo sama yaay wax ko expliquer sama yaay moom tam tiitoon. Mhm. parce que xamu ci dara ba mu ko xeloon moom tam mu tiit ñëw ci saa si mu boole mag benn clinique ñu jël ma en urgence. commencé ma. après je me man je me disais que man yéex naa ñëw fii. Mhm. Euh, parce que comme euh, foofu foog ñu taxaw fa parce que euh, des fois ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy faj parce que nit ñi dañ koy casse tout le temps da ngay dem hôpital ñu yokku la feebar. yokku la sa feebar parce que dañ lay accueil accueil boo xamante ne du baax. parce que nit ki quand même ku ñëw feebar war nga am nooy wax ak moom mhm. loolu je pense que ku jàngul médecine sax war nga ko xam. exactement loolu nag moo tax man professeur Abdou Niang dama koy loolu duma ko fàtte mukk mhm. parce que su ma fi nekkee fii ginnaaw yàlla ak moom la. Mhm. parce que ni ma jëlee euh, euh, mettre ma à l'aise conseiller ma ci laa am courage dem def dialyse. Mhm. quand su ma koy wax sax sama yaram dafay daw. parce que même sama transplantation bi sax moo ci nekkoon aussi. professeur Diakame moom ku ñu ràññee la ci affaire insuffisance rénale. sociale na. jàppale na ay patients yi accueil bi baax na même des fois ngay toog sa kër sax. mu lay woo la seet. di la nemmeeku di la nemmeeku. que loolu loolu la ñuy xaar ci quand même kuy faj. la ñuy ci quand même kuy faj. Mhm. noonu nag laa demee dialyse. Mhm. commencé dialyse yi euh, dialyse yi defe naa def naa ko 5 ans wala je sais pas moins de 5 ans yooyu léegi nag ci la commencé nag euh, ak société bi ma nekk. Mhm. ñu jàppale ma bu baax tamit. ñu jàppale ma bu baax. fi nga doon liggéeyee. fi may liggéey moom fa laay liggéey nii ba léegi. directeur bi fa nekkoon euh, ku baax. Assane Mbaye jàppale ma bu baax. Hmm. waaw nekk papa nekk mag. vraiment euh, defal ma lu defal defal ma lu baax. Hmm. waaw te foofu rek la ñu xamante. Hmm. waaw foofu rek xam nga nit moom des fois euh, sa jom ak sa kii moo lay permettre foo dem nga gis nit rek mu bëgg la. waaw waaw noonu. ak sama beneen kooku sama collègue la mais damay naan sama frère la moom tam paate aw mhm. jàppale ma mhm. jàppale ma bàyyiñu benn yoon di yéeg a ka wàcc médicament yi ñu yéeg ka wàcc dossier yéeg a ka wàcc noonu mhm. bal ci laa demee ak samay parents ci lañ àndee dem defal ma transplantation ak Abdou Niang ñu boole maag euh, des spécialistes en Inde man Inde laa defee sama transplantation. foofu dinañ ci ñëw <laughs> dañuy taxaw foofu euh, euh, dañuy ñëw pour ci étape dialyse bi la ñuy la ñuy ñëw la ñuy dellusiwaat parce que quand même euh, bu ñu delloo tuuti ci ginnaaw at yi ñu weesu nit ñi xamuñu woon exactement lan mooy. wàllu dialyse pour ñoom sax boo nee insuffisance rénale rek dialyse la alors que ça na euh, des fois mun nga am feebar bi te fekk ne doo egg bi euh, donc mu am euh, loo xam ne lu bëri lu ci ump nit ñi peut-être ci année yi ak émission yi ñu ciy def ak médecins yi di gën di wax moo tax ak association yi moo tax nit ñi gën cee yeewu donc période boobu doonoon loo xam ne lu jafe la pour que nit ñi mën a comprendre exactement ce que c'était yow dialyse bi comment ça da nga daan dem ñaata yoon nga doon dem ci semaine bi ci mois bi naka la doon demee waaw jalis bi nag moom euh, jalis bi euh, jalis bi lu baax la dara newu ci. Mm. lu baax la lu baax la parce que soo teelee dem jalis sax ci ngay gën a nekk ci ngay gën a bien portante. Mm-hmm. que soo ko yéexee def. Mm-hmm. waaw soo kon yow mën nga jàpp ni kon da nga yéex a dem. dama yéex dem jalis. Mm-hmm. à cause du choc que j'avais. niñ ma ko waxee mais man jàpp naa dama yéex a dem jalis. parce que automatiquement bañ ma jëlee en charge dem ma commencé def dialyse dama commencé jëlaat des couleurs. Mm-hmm. amaat appétit normalaat. Mm-hmm. waaw su ma waxul ni sax que j'ai quelque chose kenn du ko xam. Mm-hmm. mais mais su ma kii woon dama lay indil sax benn photo nga xool avant may def jalis ak ba ma commencé def dialyse. mu ngi noonu dialyse dara nekku ci. peut-être que ça te prend du temps parce que trois fois dans la semaine laa doon def man trois fois dans la semaine laa doon def. léegi nag euh, presque ça te prend du temps. sa mm-hmm. dootoo am parce euh, voilà temps bi muy jël ak yooyu trois fois. loolu rek la mm-hmm. la temps bi muy jël rek loolu rek mooy inconvénient bi ak des fois euh, nga am ay kii man am na ñoo xam sax peut-être dañuy def jalis xaw am tuuti problème. Euh, problème bi mooy que peut-être que duñu supporter gum produit yi bu baax ak affaire demee noonu. Mm-hmm. mais man alhamdulilah loolu mosuma cee arrivé. loolu mosuma cee arrivé. waaw ah, loolu mosuma cee arrivé. kon nanga nga doon def say heure de dialyse normal nga delluwaat def sa liggéey. continuer période boobu nag cheroon na. Mhm. période boobu nag dialyse melul woon comme nii. Mhm. nga xam ne c'était gratuit. <laughs> je sais pas j'espère que c'est gratuit loolu la ñuy wax. bon de loolu la ñuy wax mais y a beaucoup de problèmes quand même ah, gratuité boobu moom. gratuité boobu dafa metti dafa metti dafa metti je ne suis même pas d'accord ci mhm. gratuité boobu parce que xam naa ni que suñ ko gratuité. suñ ko defee mu gratuite les patients auront des problèmes. parce ah, que en tout gratuité bi de terewul moom tey la waalu gën a ay problème yi dafa gën a bëri. dafa gën a bëri parce que nee ñu la ñuy am effort la mais quand même dafa dafa bëri. mun nañ peut-être ut yeneen politique yokku générateur yi yokku centre yi. Ah, waaw hmm. waaw noonu lañ ko war a doxalee noonu lañ ko war a doxalee. waaw hmm. ah, parce que man temps bi may dialyse rek euh, c'était euh, dans une clinique euh, presque ça m'a coûté cinq cent soixante quinze mille par mois par mois xoolal loolu rek dafa cher traitement bu cher la euh, euh, rein affaire rein moom ku ci mën a def loo mën balaa mu lay dal moom def ko lu luñ la tere nga bàyyi ko luñ la kii parce que c' est un traitement très coûteux. Mm-hmm. très très même 500 et quelques mille par loolu. ak garab yeeg yooyu c' est pas donné. c' est pas donné à tout le mm-hmm. monde même loo ko am am am saa di ko di nga ko yëg. Mm-hmm. di nga dem ba benn moment dina metti. dina metti di nga ko yëg di nga ko yëg di nga ko yëg di nga ko yëg. dialyse bi daal mu ngi noonu waaw mu ngi noonu. voilà kon léegi li nga xam ne moom mooy euh, jamono yi ngay liggéey yi aussi euh, côté parce que yaa ngi naan ñi nga doon liggéeyal dañ la doon jàppale et mais est-ce que peut-être da woon ba benn moment sentir peut-être euh, voilà ay affaire parce que absence yeeg yooyu est-ce que amoo woon problème côté boobu. non noonu non non amoon benn problème ci côté boobu parce que sama séance yi. dam ko doon def de telle sorte que su ma wàccee liggéey ma dem samay séance ak le samedi. d'accord dem samay séance. ça ne se faisait pas sentir. Mhm. pas. toog ba benn moment peut nga sotee ay séance mu andi la ay jafe-jafe. si si mhm. si séance yi moom boo ko sotee moom euh, boo ko sotee wala régime bi ñu la wax. Mhm. respecté woo ko. automatiquement da nga koy subir. parce que sa dialyse moom soo commencé dañuy naan bul naanati ndox bu bëri. Mhm. ndox bi ngay naan loolu moo ci gën a metti nag moom aussi. Mhm. <laughs> ndox dafa am loo war a naan ci loxo. d'accord dafa am quantité booy naan. quantité booy naan dans la journée. ci ci imagine ñu ne la benn verre nga war a naan dans la journée. Mhm. c'est difficile. c'est difficile moo tax léegi doo ko mën soo naanee aussi du évacuer. dafay nekk sa poumon yi. léegi jalis boobu nag da ngay yàkkamtee dem jalis gaaw. Mhm. ñu évacuer loolu nga mën a kii sinon da ngay étouffé. d'accord waaw tu t'étouffes lool tam lu métti la. la et mhm. waaw da ngay étouffé ndox bi ngay naan bi. waroon mhm. naan liquide bu bëri. d'accord liquide bi du ko évacuer rein bi du ko du ko évacuer. dialyse bi moom ça remplace mat machine boobu ça remplace liggéey bi nga xam ni que rein bi mënatu ko def dialyse euh, bi moo koy def moo tax automatiquement soo naanee liquide bu bëri Euh, du dem. Euh, tu es obligé nga jaar dialyse. waaw. voilà tey may fàttalee rek mbokk yéen a ngi déglu seen émission so santé ci Rewmi FM 97.5 tey ñu am mbégte di ci dalal Awa Kébé madame Sarr moom nag mu ngi bokk ci association boo xam ne dafay taxaw ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum insuffisance rénale dafa def li nga xam ne ISAM moom mooy transplantation rénale. voilà Awa ñu gis ne Sénégal am na loi bu jëm ci wàllub euh, don d'organe demee noonu ak transplantation mais. boobu ba léegi defaguñu li nga xam ne moom mooy pratique bi pratiquer guñu ko mais balaa ñu yegsi ci loolu euh, yow sa maanaam ban moment nga jël décision ne vraiment lii damay dem defi transplantation. Euh, bam ma jëlee décision euh, c'est que dama toog ñu may wax ay waxu transplantation ma ni pourquoi pas parce que transplantation tamit boo ko defee tam. nga épargner sa bopp ci euh, dialyse bi itam moo gën a ti ba léegi moo gën a ti ba léegi mu may organe nga ci yooyu problème yooyu yëpp ba tey moo gën a ti ba tey moo gën a ti vraiment aussi euh, ma ci waxtaan ak samay parents sama frère itam ak sama sœur yi ñoom ñëpp bañ ko xamee ñoom automatiquement ñoom ba ñu xamee résultat que dama war a dem ci Vitalis rek ñoom ñu ngi commencé seet ñu may. ay voies et moyens pour mën la jàppale. pour mën pour mën a def laaj nañ médecin bi lan moo ciy pexe. Mhm. ba fii tam dialyse bi du ci yàgg. parce que je pense que maa ngi naan 5 ans laa def dialyse mais c' est moins de 5 ans. de 5 ans. Mhm. peut être ay 3 ans yooyu laay def dialyse. Mhm. depuis boobu ba ñu xamee loolu rek ñu ngi xool ban moyen. sama frère yi ñoom ñëpp d' accord ak sama sœur yi pour may ma rein. mais ñoom ñëpp def test sama petit frère moom laa compatible am. moom moom sax moom euh, depuis tout petit ñun ñaar euh, sañi sañi sañi sañi sañi kii dafa ànd quoi. Mhm. xam naa yaa ngeen dafa takk waaw waaw sama petit frère la. Mhm. waaw depuis ñu nekk xale euh, dafa ma takk. xam naa peut-être yàlla mooy def loolu. Mhm. ba moom moo ci compatible. donc ñeneen yëpp compatible lu ñu woon. non ñeneen ñi ñeneen ñi sax ñeneen ñi jotu ñoo def parce que. Euh, sama sœur yi. Mhm. xam nga tam jigéen ñi bu ñu nekkee tollu am doom yooyu tam si un peu kii. Mhm. mais elles étaient prêtes. Mhm. mais sama yaay moo leen ni non non xaadim ne moom sama petit frère mu ni non moom nañ ko bàyyi mu xool. moom moo jël engagement waaw moom moom moo def test yi. te loolu c'est pas facile quand même. c'est pas facile sama petit frère moom ba ñu toogee wax mu ni moom na def ba pare. parce que yéen ay jigéen ngeen da ngeen toll ci ay am ay doom ak tout moom xale la te dañuy wax koo xam ne du tux du naan aussi moom moo mën a def yooyu mm-hmm. macha allah mu nekk ci sélection boobu d'accord après vraiment mu sawar ci ba bëgg a dee ñu euh, ànd ñu euh, ànd euh, mu def analyse yi chaque jour ñu ànd def analyse yi après analyse yëpp baax waaw ñu noonu la comme ça après ñu jël boobu yëpp ñu ngi ànd ak mhm. ñëpp da ngeen demoon ba Inde. non yëpp fii la. analyse fi ngeen ko defee. analyse yëpp euh, analyse déjà professeur bi. Mhm. mooy def analyse yi nga xam ni pour nga xool ndax compatible est-ce que mën dem ou pas. d'accord première analyse yi première yi fii lañ koy defee au Sénégal. Mhm. Hmm? avec le professeur moom mooy xool euh, xam naa moom mu ngi fi sax. <laughs> léegi moom mooy xool moo ñuy defal analyse yi pour xool ndax il est compatible hmm, est-ce que il est apte tout ça. léegi loolu yëpp su amee. Mhm. dossier yooyu moom ngeen di jël yóbbu ko ci clinique bi la doon defal transplantation à l'extérieur. d'accord bañ ko jëlee ba pare ba kii après il te donne rendez-vous ngeen ñëw ak sa donneur ngeen def. kii bi. Mm-hmm. Mm-hmm. donc après bi yëpp positifé ci ngeen ànd. waaw ñett yow professeur ak sa petit frère bi. sama professeur. Mm-hmm. professeur demul woon. d'accord man moo demoon ak sama petit frère ak sañu grand frère bi ñu accompagné woon. d'accord waaw bi ñu accompagné ñoo demoon. avant ngeen di dem amoon ay appréhension am yooyu tiit wala yooyu. xam nga euh, jógee ci stade insuffisance rénale. ba toll ci stade dialyse. yow amatoo looy ragal. Mhm. chance ngay dem uti ji rek. Mhm. chance ngay dem uti ji li ngay passé moo gën a metti. Mhm. li ngay passé moo gën a metti waaw moo tax tiit amatu fa. tiit amatu fa. bàyyi lépp ci loxo yàlla. parce que li nga weesu moo gën a metti. waaw li nga weesu léegi bi nga demee Inde aussi foofu accueil beeg yooyu naka la demee. waaw ba ma demee Inde aussi macha allah macha allah professeur daf ñu booleeg benn euh, kenn. koo xam ni moom la ñuy àndal benn guide. boo xam ni moom la ñuy àndal moom il s'occupait de tout installé ñu utal ñu utal ñu hôtel bu ñu dal euh, ba pare di ñu transporter tout le temps pour ñu dem sañuy rendez-vous ci clinique ba tout ça. Mm-hmm. am na parce que soo demee ba foofu am na yeneen examen yoo war a def. Mm-hmm. tout temps il venait récupérer fi ñu daloon yóbbu ñu toppatoo ñu def sañuy examen. ku nekk da ngay def sa examen à part ñoom te foofu nag soo demee dañuy xool sax est-ce kii lu ngeen bokk lien de parenté yi est du da ko fay. est-ce que du loolu yëpp dañ koy seet ñoom. parce foofu dafa bëri yooyu affaire de trafic ak yu demee noonu. exactement affaire koy xool. Mhm. ba si sax dañ lay enregistré. am na benn séance am na benn stade boo xam su ngeen fa tollee dañ leen di jël ku si nekk à part euh, enregistré li ngeen di wax parce que ñoom bëgguñ ci benn problème. pour demee su fekkee dafa am problème ñu leex na leen yéen a ko d'accord nii ngeen waxoon li ngeen waxoon ñu teg la laaj laay question lu ngeen bokk même test même su ngeen nee sa parent dafa am aussi benn test bu ñu lay defal xool exactement est-ce qu'ils disent la vérité ou pas. <laughs> donc lu sérieux la. loo xam ne lu sérieux la dañ koy bu baax a baax dañ koy caytu de question ñëw rek dañuy xool même su fekkee waxtu ne pas la vérité ils le sauront. waaw loolu lépp lañ la koy defal loolu yëpp lañ koy def léegi bi nga demee chirurgie bi ñaata temps la def métti woon na méttiwuloon noonu naka la demee woon. waaw ba ma demee ba ñu demee def examen yi ba ñu defee examen yi euh, examen yi euh, amoon na examen yu ci xawoon métti mhm. mais euh, mais da ngay xam ni rek. foofu nga war a jaar c'est pour la bon cause foofu nga da ko war a def ko mm-hmm. après euh, bu ngeen demee ba examen yëpp mot ba ngeen war a def opération bi te ngeen di ñëw ci veille bi. Mm-hmm. ñu installé leen bu leen installé amaat yeneen examen yu ñu def commencé le lendemain ñu commencé opération bi après mm-hmm. opération bi donneur bi sax mooy njëkk génn. <laughs> donneur bi mooy njëkk génn donneur bi va juste faire trois jours. à la clinique. après génn léegi euh, ki recevoir moom mooy toog foofu presque euh, presque une semaine. si mm-hmm. tout se passe bien. une semaine parce que il faut bu ñu defee lay transplantation pare euh, dañ lay xool xool ndax comme rejeté wul ou pas waaw ndax ndax rein bi rejeté wul parce que mën nga defal transplantation ba pare nga am ay complications rein bi rejeté mu yàqu. Mm-hmm. waaw léegi moo tax man. avant may def sama transplantation euh, xawoon naa amoon na bañ ko xoolee bañ ma njëkkee xool dañ ma ni instant yi parce que j'étais un peu faible aussi. Mm-hmm. ndax li ma yéex a commencé dialyse yi. d'accord ndax li ma yéex a commencé dialyse. j'étais peu faible léegi il fallait que may def tuuti sport ak ñu xaw ma am benn régime bu ñu ma jox. pour lu temps nga retrouver des forces. pour sama cœur euh, aussi mën ko supporter aussi. Mm-hmm. parce que lépp dañ xool. Mm-hmm. léegi après ba ma defee ba kii après ñu ma c'est bon léegi mën nañ commencé léegi bañ ma defalee transplantation bi après macha allah trois jours après sama petit frère génn. Mm-hmm. delluwaat ci hôtel ba. léegi après man maa fa desoon une semaine léegi ba ma defee une semaine yi léegi après ma xawoon am tuuti complication. ba nga xam ni sax après demaat naa fa après transplantation bi yóbbuwaat nañ ma séance dialyse. ñu mm. war nañ ma séance dialyse. d'accord waaw mm-hmm. mais tamit. Euh, avec de grands professeurs. Mm-hmm. yoo xam ni il intervenait partout. ñu xarañ daal ci seen liggéey. macha allah macha mm-hmm. allah macha allah anan kuma moom bii di di macha allah. léegi defal nañ ma foofu jot naa subir après transplantation bi yóbbu nañ ma deux séances dialyse. après mu indiwaat ma après nag ça allait. nga daal di ci gis daal euh, macha allah comme ni ñu wax euh, yàlla def si ndox mu sedd. def def si jàmm. Euh, sa sa petit frère amuloon lu mu doon yëg ci ay peut-être douleur après opération yooyu amuloon benn jafe-jafe. non non non macha allah. Mhm. comme opération bu nekk rek. Mhm. peut-être côté ñaw-ñaw yi la doon wax mooy mhm. xaw a metti tout ça. mais ça léegi ça va loolu rek la woon ah. loolu rek la woon. Ah, parce que quand même loolu foog ñu préciser ko professeur yi maanaam ñi seen xam-xam màcc ci mbir mi nee nañu nit ku mën nga dund ak benn rein sans problème. exactement exactement exactement nit ku nekk mën nga dund ak benn rein. parce que euh, parce que defe naa ni man am naa sama benn relation. bu ma doon mës a waxal moom benn rein nee na moom benn rein la juddoo. Mhm. te macha allah. Mhm. benn rein la juddoo après la ko xam lañ ko ko wax sax. Mhm. waaw parce que dafa benn opération bu mu doon def lañ ko ko xamal. mais il vit tranquillement tranquillement te mosu ko xam. mosu ko xam mosu ko xam. loolu c'est important pour nit xam ko bañ a tiit ci yooyu daal. mosu ko xam ah. macha allah macha allah léegi sama petit frère bi après moom loolu rek commencement rek comme toute opération boo commencé. Mhm. douleur opération bi mais ça va macha allah. Mhm. ça va macha allah. Mhm. gannaaw bi nga xam ne sekk nañu waxtaan ak euh, Awa Sarr euh, Awa Kébé Sarr mu daal di ñu expliquer que euh, donneur bi nga xam ne moom moo ko jox nekk rakkam boo xam ne ñoom ñoo bokk ndey ak baay dañuy daal di jël interview ki nga xam ne moom mooy donneur bi moom tam mu expliquer ñu expérience bi nga xam ne am na ko ci euh, Khadim maa ngi lay maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay di la ziar bu baax. Mm-hmm. voilà euh, jërëjëf ci euh, nangu gi nga nangu wax ak ñun euh, mën nga ñu expliquer tuuti li nga xam ne moom mooy parce que sa Awa wax nañu engagement bi nga xam ni moom nga ci àndal que yow yaa porté wu volontaire pour vraiment jàppale ko te loolu nekkul na loo xam ne lu lu jafe la. Ah, xanaa di ci kontaan. Mm-hmm. voilà def ko avec plaisir. Mm-hmm. voilà mu doon loo xamante ne bi mu ko defee tamit aw ma ci benn regret. yëguma ci dara voilà au début sax amoon naa tuuti crainte tegen dina ma arrivé dara ou pa mais finalement li ma doon craindre yëpp dara amu ci mm-hmm. voilà je me sens bien voilà tranquille quoi. Mm-hmm. Euh, moom mu ñuy expliquer que ne yéen a àndoon ba Inde et tout daal di def mbir mi foofu nee na yow sax trois jours nga def ci clinique bi daal di génn euh, bi nga nekkee foofu aussi opération beeg yooyu comment ça s'est passé metti woon na euh, nga expliquer ñu naka la woon exactement. waaw opération yi moom méttiwul. Mm. juste ay analyses yooyu def la. Mm. daanaka sax doo ko yëg. Mm. da ngay yeew rek yow gis sa bopp ñu defal la ay perfusion ay bandages. voilà après peut-être que anesthésie buy wàcc ci ngay yëkk yenn douleur yi. Mhm. mais après y a rien mhm. y a rien de spécial. Mhm. te boobu ba léegi bi nga ko defee mu mat pense huit ans te amoo ci benn jafe-jafe amoo benn yoon boo toog am ci loo ciy sentir ak yooyu. franchement awma ci benn jafe-jafe sentiruma ci dara du douleur du du benn effet négatif tamit. voilà yàqalutuma sama activité dara. samay sport. peut-être tey sax laa gën a mën def. Mhm. la ma doon def sax tey li may def moo ëpp. Mhm. voilà. Mhm. aw ma ci benn affaire. tey am na loi boo xam ne am na Sénégal umpale woo ko boo xam ne dafay permettre li nga xam ne moom mooy don d'organe ak euh, transplantation yu demee noonu mais commencé guñ ko appliquer léegi yow euh, lan ngay wax peut-être tey jii ñi nga xam ne seen mbokk nekk nañ ci situation boobu ñu war leen mën a jox tey seen i roño di am ay tiitaange guñ ci am lan nga leen di wax. ah di leen wax rek. bu ñu am tiit bu ñu am jaaxare ku ci mën dimbali sa mbokk na ko dimbali def ko ngir yàlla tax xam ne dara du la fekk voilà dara du la ci fekk mhm. lu baax la bu fekkee mu na mu lu gën la mhm. voilà te danga gis na ni boo ko defee sax sa wér gu yaram day gën a yokk mhm. man def naa ci euh, remarque boobu voilà am na yu bëri yu ma doon yu mais mën naa ne ba ma defee greffe bi sentiratuma dara. Mm. waaw daf mel ne yàlla moom daf cee boole ay mbiram. daf cee boole xéwal waaw. <laughs> voilà ñu lay jaajëfal bu baax a baax Khadim euh, Kébé. waaw jërëjëf soxna si. Mm-hmm. ñoo ngi lay fay ñu nit. di mm-hmm. kontaan ci interview bi. Mm-hmm. voilà jërëjëf. jërëjëf. donc Awa yaa ngi may wax que ni bi nga euh, defee transplantation beeg yooyu après euh, bi mu amee tuuti complication après yàlla def si ndox mu sedd ngay jël say garab ba nga def fa une semaine donc finalement ñaata temps nga mujj def Inde pour ñibbi si fii ci Sénégal. Euh, Inde dem naa fa mais de juin def naa fa deux mois presque. Mm-hmm. def naa fa presque deux mois. mois bi yëpp yaa ngi ko defoon ci hôtel bi après. di faju wala di continuer di dem. consultation damay jàbbante damay doon jàbbante. Mhm. entre fi ñu daloon ak hôpital bi. Mhm. fi ñu daloon ak hôpital bi waaw fi ñu mhm. daloon bi. ngay jàbbante. parce que dañ doon def ay analyse complémentaire pour assurer que ne rein bi fixé wu la. exactement exactement du question dañ lay defal transplantation rek et puis hop nga ñibbisi. di nga fa toogaat euh, déjà def na euh, deux semaines ci hôpital ba. waaw def naa deux semaines ci hôpital ba pour ñu xool léegi bu ñu xoolee ni que mën nga génn nga génn mais da ngay toog kër gi mais da ngay ñëw ay rendez-vous ñu lay defal ay yenn analyse ak yenn rajo. Mhm. xool ba tout est ok ñu door lay libéré nga ñëw boole làkk ak médicaments yi nga war a jël. tout sax ak régime bi nga war a suivre. Mhm. waaw maa ngi dégg un jour benn euh, ku am association fii euh, d'insuffisance rénale muy expliquer que ni transplantation li ci gën a métti mooy garab yi. parce que garab yi dafa cher. transplantation moom da ci gën a metti moom transplanté boo gis mooy garab yi les médicaments sont excessivement chers. ñun loolu mooy sañu problème ba ñu buggoon dem adhérer ci association Achir ñu xool ñoom nu ñuy dimbalee. ba sañi garab yi. parce que tam koy wax transplantation parce que man suma ma toogee di déglu naan Sénégal dañu bëgg a commencer transplantation daf may jaaxal. parce que le plus important amuñu ko. mooy les médicament les médicament c'est excessivement cher. c'est pas à la portée de tout le monde. yaa ngi ima tey c'est des médicaments qu'on doit prendre à vie déjà une boîte à cent mille. à cent dix mille te boîte boobu am na ñoo xam ni. mën nañ ko jël ci une semaine. cent mille francs. cent dix mille. te boîte boobu te du benn médicament boobu rek ak yeneen yu koy accompagner peut-être mën naa la wax ni que euh, pour ñenn mois bi mën nañ cee dépenser trois cent mille hmm? mois bi mën nañ cee dépenser trois cent xam nga ni loolu c'est difficile. pharmacie amul subvention amul dara te moo tax su ma déggee état nan dafay naan médicament yi. Euh, du fay naa dafa bëgg commencer transplantation loolu daf may jaaxal ba pare médicament yi soo ko doon gis sax Sénégal <laughs> mu tane mais doo ko fi gis dañ koy jéegaane léegi benn pharmacie moo ko fi amoon di ko jaay mais presque depuis plus de quatre mois indiwu ko léegi soo amee ay parents à l'étranger ñoo la koy indil monsieur Sarr mii Ahmed Sarr ku sonn la ci médicament yi mhm. ku sonn la ci patient transplanté yi. Mhm. fu ne mu ngi fay dem di utal utal médicament lu kenn xamul. Mhm. waaw fu nekk dafa sonn dafa sonn waaw te vraiment euh, loolu tam euh, ñun ñun dafa mel ni ñun bokkuñu ci couverture bi. Mhm. couverture bi dafa ñun ñu bokkuñu ci sañu médicament amul Sénégal jéem ñu cee def dara pour ñu ñëw. fu ne ñu ngi fay jéem a taxaw pharmacie nationale d'approvisionnement loolu waroon na au moins di ko am. di soulager malade yi waaw léegi su fekkee yow yaa ngi so ñi nga xam ne ñoo ci gën a am chance mooy ñi nga xam ne que am nañ assurance. bu leen di aider am nañ assurance mais koo xam ni yow par chance nga am transplantation après. nga retraité les moyens ne suivent pas day les moyens ne suivent pas. Mhm. wala nga retraité amatoo doole loolu foo jëm. Mhm. foo jëm metti la def lu ñun sañu problème yépp mooy problème médicament yi. Mhm. suñu mënoon dimbali ci sañuy problème médicament vraiment on allait saluer ce projet. on allait saluer ce projet commencé def transplantation rénale ici au Sénégal. Mm parce que quand même ni ñu naan euh, ressources humaines yi de qualité mu ngi fi macha allah ñi fi nekk xarañ nañ ci seen liggéey mais mesure d' mooy problème. mesure exactement. Mm mesure d' mooy problème waaw les ne suivent pas. ah les moyens ne suivent pas parce que bu ñu yaakaar ni que li ñuy wax nit ñi transplantation transplantation transplantation dafa am lu ko njëkk. Mm-hmm. mooy que les médicaments soient disponibles d'abord. Mm -hmm. parce que automatiquement boo defee transplantation. le jour qui suit ou bien la minute qui va suivre da nga war a commencer jël médicaments yi. Mm-hmm. da nga war a commencer jël médicaments yi sinon du am benn sens. Mm-hmm. da nga yàqal ci la may rein yàqalaale sa bopp mu amati deux cas. mu amati deux cas benn cas rek lañu amoon mais léegi dañuy obligé am deux cas waaw. metti waaw danga kal kële mayoo ko defoo ko dama kii mu ngi noonu. c'est un peu difficile. moo tax ñun lépp luñ ñu mën a dimbalee pour euh, médicaments yi disponible ñooñ ñoom nañ ko def. autorités yi man vraiment jéem naa rapproché aussi ay autorités. Mm-hmm. yoo xam ni est-ce nañ ci jéem a inter nañ ci jéem a essayer d'intervenir mais. rien. Mm-hmm. rien loolu lu ñu metti la lu ñu metti la lu ñu metti la. Mm-hmm. bi nga defee transplantation bi ba léegi yaa ngi lekk normalement di naan normalement maanaam li ñu doon tere yëpp yaa ngi koy kii nànk-nànk yaa ngi koy defaat nànk-nànk wala. waaw loolu li ñu mënoon tere yëpp. Mm-hmm. maa ngi koy defaat nànk-nànk mais xam nga euh, nit moom da nga war a am alimentation bu correct waaw alimentation bu correct moom nga war a am. lépp luy niin niin moom ku biir sax dañ la koy tere. Mhm. xorom bu bëri dañ koy tere ñëpp. Mhm. suukar bu bëri dañ koy tere ñëpp. Mhm. naan ndox dañ koy conseillé ñëpp. loolu rek léegi yaa ngi naanaat normal. naanaat normal. des fois nag o bureau nga xaw <laughs> nekk ci liggéey bi ba nga xam ni que. <laughs> da ngay <laughs> sax doo ko finir alors que ça c' est dangereux mais soo ñëwee tam aussi tu essaies de te rattraper. aussi ngay respecté kon ñaata bouteille ndox lañ leen di naan lool. minimum 3 litres d' eau. 3 litres minimum 3 litres d'eau mooy je suppose que deux tey war nga ko mën a naan. waaw mhm. plus les liquides les poissons tout ça waaw. Mhm. mais quand alimentation bi léegi macha allah yaa ngi. alimentation bi macha allah. lekk de manière équilibrée. waaw waaw lekk de manière équilibrée. Mhm. waaw te loolu moom ñëpp la war. loolu moom ñëpp la war yi <laughs> tout ça affaire demee moom ñëpp la war. Mhm. moo tax ma ni même une personne bien portante tam mhm. dañ koy naan mu am alimentation équilibrée. te léegi personne bien portante sax yàlla def ne bareetul. <laughs> kóoro moom ngi am feebar bu mu la. à cause de l'alimentation à cause de l'alimentation ils ne boivent plus assez euh, tout ça. ça mhm. complique les choses. Mhm. ça complique les choses waaw bu ñu noonu. Mhm. waaw mais ñun daal ñun sañu problème majeur bi transplanté yi am fu nekk maa ngi koy crier amoon na tam beneen kii bu fi ñëwoon tam interviewé ma euh, la même chose waaw. sañu problème mooy garab yi yow des fois da ngay fàtte sa bopp sax parce que am na ñoo xam ni ils souffrent ñu am transplantation ba rénale ba pare jékki-jékki ñu am seen médicaments yi la dernière fois ba pharmacie bi ñu tàmmoon di jël seen médicaments yi amee rupture jékki-jékki am rupture kooku mm, fekk man maa ngi jéem a sax négocier man médicaments yi ma dese woon en stock après benn jour mu woo ma ne ma expliquer ma problème am. ne ma moom instant yi amul médicament dafa amoon benn boîte bu périmé moom lay obligé naan sama man man man ba ma ko waxee man man damaa yuuxu sax. Mm-hmm. ma ne ko quoi mun ma moom la que parce que munul presque une semaine toog na. jëlul moo tax mu ni xaaral mu comme amoon na benn boîte bu périmé mu jéem a naan ci am tam naa muy am quelque chose. Mm-hmm. waaw mu ngi noonu ça c'est grave. très grave ça c'est des médicaments périmés. Mm-hmm. <laughs> grave. mi ngi noonu. Mm-hmm. ak yeneen cas yoo xam ne que moom nee na moom des fois sax am na ñoo xam moom su doon dotation am su doon ñëw day am ñoo xam ne may leen ci. parce que ñoom ils mm-hmm. mu ni ma ba pare maa ngi nii dafa il il il vit en location dans une loca maison louée location sax dafa am problème. Mm-hmm. parce que parce que rythme boobu c'est un rythme infernal. infernal. Mm. une boîte qui peut durer avec toi dix jours la boîte c'est cent dix mille. fekk yeneen garab yi garab yi ak ay examen analyse yooyu def amul amul amul subvention amul rien du tout tu auras des problèmes avec ta location. Mhm. noonu la ma ko expliquer ma fàtte sama bopp li ma ci man ma def ko ci. Mhm. mais du tout le temps nga koy mën. Mhm. du tout le temps nga koy moo tax ñun man tout le temps damay naan euh, su fekkee autorité yi ñu ngi ñuy dégg au moins qu'il puisse faire quelque chose parce que loo xam ne la. mën na dal ñëpp. yow ëllëg mën nga ñi ñi nga xam ne ëllëg mën na dal sa proche. yow yaa ciy sonn. mieux bu ngeen nekkee ci euh, benn position boo xam ne mën ngeen régler le problème. essayer de régler le problème pour les pour les génération qui vont pour ñi koy soxla ëllëg. Mhm. mu ngi noonu. li nga xam ne moom mooy quand même euh, garab yi je pense que loolu comme ni nga ko waxee rek autorités yi war nañ ci gën a gën a taxaw mhm. parce que tout le temps dañuy focaliser wu ci les maladies transmissibles mhm. mais les maladies non transmissibles ravage yi ñuy def mara day taali mhm. lu ci mel ni ñoom cancer ak ñoom jabet ñoom insuffisance rénale ak yeneen feebar yoo xam ne vraiment ñu ngi sonal askan wi ba tey rek ñuy wëyandi nga may wax euh, sànq off the record que ni da ngeen bëgg a taxawal projet pour association des transplantés. Mhm. projet boobu fan fan ngeen ci fan ngeen ci toll ak yan jafe-jafe ngeen ciy jànkoonteel. Euh, jafe-jafe bi ñu ciy jànkoonteel mooy que des fois malade yi am na ñoo xam ni du ñu bëgg di génn di affiché wu. Mhm. loolu mooy problème majeur. Mhm. problème majeur la parce que tam su fekkee da ngay xeex dara bul bañ a wane sinon. Euh, ton problème ne sera jamais solutionné. Mhm. le problème ne sera jamais solutionné ba pare aussi euh, déjà loolu benn la parce que yow doo nga mënoo dem na da ngay créer associé amoo kenn ku nekk sa ginnaaw. Mhm. il faut que les transplantés se manifestent d'abord. Mhm. se manifeste accompagner la document paperasse bi ci war yépp ku nekk jàpp ci benn côté nga dem. parce que si tu es professionnel. tout le temps doo mën a bàyyi sa liggéey dem ci yenn yi. Mhm. moo tax euh, ñu ni dans un premier temps euh, en collaboration avec l'ACHIR ñu jéem a xool ACHIR ñu ñuy dimbalee ba ñun tam ñu am sañuy association ci loolu lañu ñu toll. Mhm. waaw ci loolu la ñu toll léegi ma ñu tolloo ci affaire jéem a créer association le problème des médicaments est là. Mhm. parce que ñi doon am. as ñëw ci territoire bi amatuñ ko. Mhm. léegi ñu nekkati ci combat boobu. Mhm. ndax médicament yi ñu mun disponible ci foofu laal moo ñu bloqué. Mhm. parce que tam di xeex loo xam ne yow di di xeex di dem di uti ay. Euh, association alors que un, un autre problème est à côté mooy le problème des médicament mm je pense que balaa ngay dem di uti ay paperasse il faut être bien portante waaw il faut être bien portante moo tax ñu nekk ci combat affaire médicaments yi jéem koy xool nu ñu cee lijjantee ba mu taxaw dooray demaat ci. dooree dem ci beneen étape dooree dem ci beneen mhm, mhm. donc kon nga nekk jamono ji di bootu ci ginnaaw Achir ngeen di liggéeyandoo di xeexandoo ci ci mbir mi. Mhm. et je pense aussi que pourquoi pas ngeen jéem a xool peut-être am def ngeen ko sax peut-être ay partenaire à l'étranger ak yooyu euh, jéem a bootu ci yeneen associations internationales pour euh, ñu gën leen mën a jàppale. loolu yëpp c'est des possibilités. loolu yëpp c'est des possibilités. c'était possibilité ñu ngi ciy xalaat. Mm-hmm. mais aussi temps bi euh, nit ñi euh, disponibilité des femmes. pour nga dajalandoo yëpp mooy ñëpp mooy jëm dafay dafay metti mm. pour nga dajal des fois dañu daan def sax ay réunion ñu doon tenir des fois kii dafay absent heure bi kii du arrangé kii parce que kii dem na liggéey kii liggéey heure bi liggéeyam. c'est difficile nga dajal dafay kii waaw dëgg dafay metti mm-hmm. moo tax daal mais euh, xam naa ni incha allah dina am mais ñu ngi ciy taxaw. mais il faut ku nekk daf def ci sacrifice. Mhm. il faut ku nekk def sacrifice. waaw ah, mhm. parce que jot bëriwul dañu am dañu amee ay liggéeyu jàmbur. Mhm. du tout le temps on peut pas tu peux pas te libérer à tout moment. à tout instant loolu doo ko mën. waaw ku nekk dafay def sacrifice euh, déjà réunion yi ñu doon tenir c'était les week-ends c'était les week le samedi même le samedi après-midi da ngay xool benn groupe nekk ñoom instant bi duñu mën parce que wàcc guñu wala affaire demee noonu. Mhm. yooyu ngeen koy gérer. day metti dafay metti dafay metti mhm. voilà euh, euh, dama bëggoon xam benn affaire bi nga demee Inde. Mhm. ba def transplantation bi est-ce que mun nañu xam njëg bi parce que dañuy wax ne c'est excessivement chair <laughs> même pas seulement médicaments yi mais euh, chirurgie bi rek beneen affaire la waxtumaan bi billet d'avion yeeg nga dem ak ñëw ak yooyu. ah c'est c'est c'est cher de. c'est cher parce que parce que parce que ñun euh, c'était au coût de trente millions. Hmm? trente millions. trente millions trente millions minimum ah. te médicaments yi ñëwaguñu. waaw ah, médicaments ci la bokkoon. d'accord. ak billet d'avion yi. Mhm. hébergement bi. Mhm. tout ça aussi c'est pas donné. waaw ah, yooyu ci la bokkoon. yooyu yëpp ci la bokkoon waaw. Mhm. kon liñ naan jot na pour autorité vraiment ñu jàpp ci mbir mi fexe ba médicament yi disponible ñu mën a def transplantation bi fii parce que du ñëpp mën a jël dagg billet d'avion dem yeneen réew pour def ko foofu donc nañu fexe mu am fii teg tout ce qui est possible comme moyen pour mën a ki encadrer loi bi tamit parce que li nga doon expliquer sànq euh, loo xamante ne la mën na àndi ay trafic d'organes ak yeneen ak yeneen donc foog ñu encadrer ko teg ci sécurité bu mat sëkk waaw loolu yëpp mu ngi ci euh, parce que trafic d'organe bi euh, soo deful nank euh, dina mujj intensifié wu ñu ngi koy wax mais dina mujj intensifié wu moo tax il faut comme comme à l'étranger dans les pays à l'étranger comme ñoom ni ñu def ba nga xam ni que peut-être que dinañ ko limiter quoi dina dinañ dina wàññeeku trop mais loolu yëpp kenn mënu ko mënu kenn mënul maîtriser lépp dañ koy amoindrir rek waaw kenn mënul maîtriser lépp parce que ñun ba ñu demee Euh, déjà nee naa la dañ lay jël ku nekk dañ lay jël à part poser la ay questions ku nekk répondre séparément lañ lay jël kii di wax fële kii nekk ci benn salle keneen di la interview. Mm-hmm. après ñu def comparaison xool ndax ñii am na li ñuy wax nii am nañ lien de parenté wala je sais pas quoi. Mm-hmm. aussi ba pare euh, su ngeen defee euh, kii verbal ba pare am na ay analyses yu ñu lay defloo. Mm-hmm. analyses pour xool ndax yéen li ngeen wax. c'est vérifier ko vérifier ko. est-ce que vous avez des liens de parenté est-ce que waaw. waaw ba pare ban ban année la woon. c'était en 2012. en 2012 d'accord donc ça fait un bon bout de temps ça huit ans je crois. oui. waaw mm-hmm. mm-hmm. ça fait huit ans maintenant. 2012. Mm-hmm. te boobu ba léegi yaa ngi am. tan amoo problème majeur. non maa ngi sant yàlla. maa ngi sant yàlla. maa ngi sant yàlla. Euh, côté vie sociale amul benn problème moom la ci indil. vie sociale, non, non, à mon problème, juste côté vie sociale. Euh, vie conjugale. Euh, parce que yaa ngi wax au début lu am solo danga ne sa borom kër dafa ci jàppale bu baax te loolu tamit chance la c'est pas évident. waaw waaw moom tam chance la. Mm. Euh, la moom chance la chance la man sama borom kër c'est après la transplantation mm, la que kii mm, y en il trois ans. Mm-hmm. Hmm? waaw mais ça va. Mm-hmm. ça va. voilà en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax émission bi jeex na. Mhm. déjà pour le courage parce que li nga wax rek ñenn ñi du ñu nangu pour euh, afficher wu. Mhm. te loolu je pense que c'est à saluer courage bi. Mhm. di la remercier bu baax a baax peut-être ñu may la jox la kàddu gi nga daal di tàggatoo ak mbokki auditeurs yi peut-être waxaat dernier plaidoyer booy def ak aussi ñaaxaat askan wi ci fànn lépp loo xam ne jëm na daal ci ñu sàmm seen seen réunion pendant qu'ils ont encore avoir un, un rein en bon état. d'accord Alimatou maa ngi lay remercier te aussi di wax euh, nit ñi ñu xool bu baax parce que euh, feebaru roño metti na bu la dalee. Mm-hmm. metti na trop trop trop bu la dalee. Mm-hmm. waaw metti na psychologiquement physiquement metti na moo tax euh, tant yaa ngi am wér-gu-yaram ngay saytu say rein yëpp di intact góorgóorlu ci voie bi nga doon suivre def xool sa alimentation normalement bañ dugg ci yenn yi bis bu la dalee tam bis ñi mu dal tam euh, ñu xam ni que euh, feebar la bu ñu mën a traité comme yëpp respecter li la médecin yi di wax respecté say dialyse doo ci am benn problème doo ci am benn problème parce que nit ñi def nañ 30 ans de dialyse am na ñoo xam def nañ 30 de jalise waaw amuñ ci benn problème waaw euh, naan ndox bu bëri ñi nga xam ni naan ndox bu bari mooy ñi nga xam ni yegguñu stade dialyse mm-hmm. naan ndox bu bëri lekk-lekk bu wér moytu ay yu nii nag ay yu kenn xamul yu mm-hmm. ñuy lekk ak genre yooyu waaw mm-hmm. boo ci yeggee tam respectel liñ la wax waaw boo demee aussi ba def yàlla may la chance nga am donneur nga def transplantation rénale suivre sa régime bu baax jëlal say médicaments normalement un euh, waaw voilà. Mhm. waaw loolu rek mooy kii jëlal say médicament respecter say médicaments def say analyse nga aliment lépp ci alimentation la rek. Mhm. lépp ci lekk bi ñuy lekk la. Mhm. moo ñuy indi problème bu nekk moo ñuy indil problème bu nekk waaw. waaw léegi nag aussi li may ñaan aussi suñu autorités yi mooy ñu jàppale transplanté yi nekk Sénégal. sonn nañ. parce que def benn loo xam ni que garab yi ngay war di fajoo amul fii euh, c'est très dur. yow sa boîte suy bëgg a jeex sax tu es stressé. tu es parce que yaa ngi xool est-ce que am nga xaalis boo jëndee. Mhm. ou ba pare soo ko amee sax foo koy amee. Mhm. est-ce que di nga gis ku la ko demal jëndil. Mhm. indil la ko yónnee la ko waaw. est-ce que yow ki ngay yónni sax est-ce que yow doo ko déranger. Mm-hmm. di ko yónni tout le temps muy dem di jënd affaire dem. Mm-hmm. loolu tam c'est c'est dérangeant. Mm-hmm. waaw parce que ku nekk bëggul di soo sañoon nga dem doxal sa bopp dem faj sa soxla mais tout le temps xam nga kooku nu mu def ak pharmacie bi. dafay dox ay kilomètres dugg ay bus affaire demee noonu nga koy déranger loolu tam. c'est un problème moo tax may ñaan suñu autorités yi pharmacie nationale d'approvisionnement ñu jàppale ñu. ñun ñun ñun ñun ñun laajuñu leneen lu dul sañu médicament na disponible ba pare accessible accessible accessible xam nga ni benn boîte booy fajoo à vie. Mm-hmm. nga koy jëndee minimum cent dix mille te du benn garab boobu rek presque le mois nga war cee def trois cent mille te loolu à vie la. Mm-hmm. kenn mënu ko. Mm-hmm. kenn mënu ko di ko mën tey mais mën na am ëllëg di nga nekk ci yeneen yoo xam ne doo ko mën. waaw ñun loolu la ñaan. ñu jàppale ñun euh, ba pare di remercier aussi ñi nekk di sonn ci ñun. Mm-hmm. waaw te amuñu benn pouvoir. Mm-hmm. ku si mel ni docteur ku si mel ni Ahmed Sarr. Mm-hmm. sonn ci bay bëggatee. fu ne mu ngi seet âge malade yi fu ne mu ngi leen fay jéem a lijjanti la ay médicament lu ne mu ngi koy def te moom macha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam. amiin wéral ko. li muy jàppale nit ñi yàlla fay ko. Mm-hmm. voilà merci beaucoup euh, Awa Kébé Sarr mu nekkoon euh, tey euh, Awa Kébé saar kon ñu doon waxtaan ak moom ci seen émission SOS santé amoon ci mbégte lool déjà ñu koy remercier bu baax ci nangu bi nga xam ne nangu na ko ànd ak ñu ci suñu émission ñu koy jaajëfal encore une fois ci courage bi di ko féliciter bu baax a baax di jaajëfal mbokki auditeurs yi nga xam ne ñu ngi deen déglu émission bi.